seen bos voilà. <laughs> madame la la was ngi de wër na yàlla. ah da nga doon naan was. ka koy ah, ah dañu doon naan. dañu was ji waaw maa ngi koy ñam doon naan. mais comme yow peegar nga. naanal ndox mboote defu la dara. <laughs> mais man man mi bi amul suukar lem la am. waaw was bi lem lañ koy suukaree <laughs> borom was bi dañ koo namoon lool gëjoon koo gis. paate nu tudd paate. waa kay paate was nag. paate was nag na la jàmm rek di téye. amiin na la jàmm rek di téye ndax ñu dañoo dañoo bëgg di la gis déedéet na ko jàmm rek di téye man yéen xam ngeen sama diggante was bi ni mel. beneen bi ci topp mooy euh, waa ji dugal fi publicité bi yal na ko yàlla fay waay moom li muy jaay baax na lool te dox ci réew mi. <laughs> loolu rek dox ci réew mi. ñoom ñi dañoo sonn bari problème pare paan yi daa bari. am na sama xarit boo xam ne ne ma man. paan yee bari xaar xaar ma leneen seen publicité bi. lu ko jaay xaw ma waaj kii la nu mu tudd médecin kii la traditionnel. traditionnel lay def ah médecine traditionnelle. day faj. day jàppale góor ñi également ñi nga xam ne dañuy am ay paan dana di dépanner. waaw mhm. ah. loolu dafa dox ci réew mi loolu dafa dox. dox <laughs> na ci réew mi paan dépanner yooyu dafa dox ci réew mi waaw kon nag. gërëm nañu la sant la bu baax a baax a baax a baax a baax. te nag réew mi est-ce xam nga ne béy bi yow loolu ñu koy jaay ci réew mi dañoo bëri. waaw béy bi te ñu ci am industrie bi yooyu yëpp industrie bi day dox. Hmm? waaw maa wax li man. médecine traditionnelle. man dama ko bëgg def sax. Hmm. dama bëgg dama bëgg changer métier. juri nga ci xoosum weer. waa dem def médecine traditionnelle. di defar samay njamb di jamb samay jamb soose njaay jambuy far te neex di ko jaay. di faj lu ne. tout ndoxum si tii. non xaaral ba waa fonds yi lijjanti sa dossier bi quoi. dañoo yéex. waaw ah, vraiment démb dama leen a gis sama xel mi yëpp dem dem ci yow quoi. Ndiaye ci télé bi. man xam naa li nga ma yéene. waaw sama xel mi yëpp dem ci yow. Barke sëñ Bamba man xam naa li ma hmm? yéene man sama waa ji journaliste mag bi maak yow xoolal petit ba grand. ñëw. yaa ngi dégg. donc xam naa li nga ma yéene waaye waa fonds yi dañoo yéex. comme dañoo yéex nag bàyyil ma defar samay njamb. lu mu xanaa lu mu bëggut a lijjanti ci réew mi. mooy yow xanaa xamoo ne was bi sax day faj. kooka na xanaa lu mu bëggut a lijjanti mami waaye lu mu bëgg a lijjanti mu lijjanti ko lu mu bëggut a lijjanti kay moo ma jaaxal. non bu la neexee ñu dem fonds yëpp mën nañu ànd ah demee fëgg bunt yi xool luy xew. nañ dem suba. waaw réew mi nag parfois da ngay su ngeen wàccee. buñ ko wàcc ndax nag gis nga li ma lay wax nii gis nga boo ko deful damay daal di ubbi sama entreprise médecine traditionnelle di jàmb samay jàmb wa affaire bi jàmb kese la ngaa la problème amul fii dañu koy jàmb ba mu saf man daal samay jàmb laay yor na bu koor di faj ndoxum siti di faj ngas ñaar di faj waga aha aha di faj xiis mbaj xiis mbaj xiis mbaj boobu tamit dama koy faj yaa ngi dégg di faj euh, euh, euh, kii paan paan paan paan paan may faj paan paanu la oto yu paanu wala. de panne électrique. da man man def naa mécanicien. def naa mécanicien man maay la femme de tous les métiers. man def naa lépp. astafurlah yem na yàlla baal est-ce que caméra mooy bi nga yor fee. ah waaw yàlla yërëm ma. caméra moom yàlla yërëm ma de li may wax nii bu ma ci teg benn daan. waaw li may wax ni yëpp bu ma ci teg daan. yàlla yow xolal li may wax ni yow jàppee ko kaf rek xamal ne damay dugal ko foofu rek. bul ma ko jàppee benn daan dëgg-dëgg. na amul solo. ok mm-hmm. may wax rek parce que yéen seen genre yi tam ngeen dem ba foofu ne moo ko doon wax. Mm. man loolu yàlla loo def da koy bindal. non dafa bëri adwaas adwaas bi bind yàlla de réer. dafa mën na jënd sama yos ba pare. kii bind tamit yàlla na am problème boo xam ne tal na leneen lu dul bind sama yos <laughs> yàlla de réer dossier yi ngeen war a bind bëri nañu yow bit bi kale. waaw non ñu war a bind sax ci adwaas dafa bëri nañ te bind ñooñu ànd tamit dafa bëri lu garaaw man damay dundal xolu nit ñi dama leen di bëggal. am na kaay loolu tuyaaba ci war a am. da ngay ñaan ah? wax bi moom ci saa si lañ koy bind da ngay ñaan kay ñu effacé li mu jot a bind. Eh, soose. Mhm. bilaay soose soose bu ñu effacé wul sama tableau ah, dina garaaw de. immédiatement lañ koy bind. immédiatement boo waxee dara lu dul dëgg immédiatement la ñuy bind mami Samb <laughs> wax na. nga ni lan lu dul dëgg. ay man yàqu naa di <laughs> léegi kay ci saasi laa jël oustaz bu la neex yow kay da ngay ñaan ñu effacé yi ñu jot a bind ba pare. ay yàqu naa di la ñuy bindee. ah loolu big feutre lan. <laughs> nga la ñuy bindee. Hmm? am na bu ne fii am bu ne fii daal. waaw ñoom ñaar. mais lu ñu mën a gome la. waaw. ah yàlla kay lu mënul jéggale yi xanaa effacé rek. boo ah. tax fii ustaas bi mu fiy wax keroog nab ko léegi tu comprends le sens de ma question. Mm-hmm. oustaz daf fay wax keroog. car radical yooyu boo boo kiiwee boo defee dara lu lu kii abakkaar boo bakkaaree nga tuub nga jéggalu yàlla dina la ko baal waaye doo ko defaat ma ne ko kon dañ dajale bakkaar mu baal bi benn yoon dañ ko dajale. <laughs> ndax man moom sama ardoise fees na moom. yërmande yàlla moom yaatu na moom vraiment. sama ardoise. ay yërmande yàlla yaatu na. yàlla de bu effacé wul sama ardoise la mbaay dana ñaaw de. parce que man lu bëri dama koy xam nga nu ma ko wax de du kii daal eh, parfois aussi du ko tey sa bos. dañ koy gomme vite fait. cum eh, la bëgg nag. waaye Asta waaye internet maa leen gën a bëgg ku ku ngeen bëgg bëgg na la. waaye te sax fii awa tootoo wa paati wan naa lii noonu dara xew fi dara amul. ah kii yow yow. yow ngaara kan boo boo boo boo tooñee yàlla noo ko jéggaloo. ah mu ngi nii astaghfirullah astaghfirullah bi ngay def. après astaghfirullah wa tuubu ilayhi ah waaw waaw mais waxuñu nga dëkk ci tuubu illéegi yi de mel ni soose njaay te bañ koo defar waaw dañ ne la tuub bu jub mooy tuub boo dul dellu waaw de xam nga ne la am ba des naa ko dajale kon moom mat ma baalu ko benn noonu <laughs> man am benn problème yàlla amul problème man am billaahi yërmandeem yërmandeem ak a yaatu waaw fii fii dara xew yow xanaa gis nga heureusement yow eh, hmm. yàlla bëri yërmande ba joxul yenni doomu aadama bu ko joxoon doomu aadama soose dana gën a garaaw encre encre indélébile de liiruma la ni sama bët yi baaxul. ku ñu encre indélébile. indé indélébile. man de wax mënuma lii fan yii mënuma lii. ma wax la bu dee encre. lunette yi bu ma ko takk bu dee encre léegi de mu du indélébile day day day débile. ma dee Johnson loo wax. encre indélébile amu fi. bàyyi ñi ba ba ba bàyyi bàyyi njokkaay. mami nee na ma nee na nabu ne ko papi nee na nga raconté yaayu Ayda papi recul. yaayu kan yaayu Ayda. ku yaayu Ayda. ah papier ko wax man ma wax ma wax yaayu Aida. nee na nga nettali nee na nga raconté yaayu Aida. si loolu mënu ma ko raconté ci télé. papi génnal ci commentaire yi. yow dañ laa teg Dangote pour ngay liggéey <laughs> société bu mag bi nga yor seen infographie am nga lu la doy ba nga xëyee sa bureau huit soo sa njaay nañ waxante dëgg infographie amul lu ko doy ci entreprise. yaa nga war a taxaw ci création papi génn live bi. génn live bi nga dem liggéey wuy ji waa Dangote loolu mënuma ma koo nekkal ci tele loolu off laa leen ko mën a nekk. papi ak oustaz lenn daal mën naa leen ko ci ñamal. s'il te yaayu ay Ayda daal moo amoon ay copains yu ñëwoon seet si Ayda ñëw naan si ataaya soo sa njaay yaa may bi ñu ñëwee di naan si ataaya yaayu Ayda ngi ci néeg bi. Mhm. benn moment benn copain Ayda xaritu Ayda benn copain Ayda di dem ci toilette. naka lay demee ci toilette bi romb maire bi ci buntu néeg bi. maire mhm. bi ne ko foo jëm mu ne ko ci wanag gi laa jëm mu ne ko kaay dugg sama wanag yi boo gën a gàtt. Mhm. xale bu góor bu dugg ca wanag ya après li ci des mënu ma koo wax. Hmm. ci télé lañ ne. foofu mel na ne mais bu off bi. <laughs> foofu mel na ne daal niru na xam naa. après daal. excité ndànk ndànk dama leen expliqué ndànk ndànk mbay bul excité mbay li nga tax nga wax yaa ko def mbay ndànk rek li ngay wax li maa ngi koy dégg mbay ndànk bu yëf yi jeexee laa leen koy wax waaw kay duma leen ko wax fii ci ci bi émi ma na foo xam ne maa ngi ci bureau bi na génn papi génn ci live yow ngir yàlla papi man dama fàtte woon sax yaayu Aïda génn ci live bi Samb génn ci live bi Soosi Njaay maa la ko ñaan bu émission bi paree rek laaj ma lu xew foofu hmm. barke sëñ Bamba ah, te boo tegul juróomi junni duma la ko wax. waa ah, xam nga sama man yow man sama diggante sama diggante xaalis man ko rompre ma yow ci loolu bëgg naa ko. Hmm. soo seetlu loolu bàkkaar am. ma ger ma ah, ah ma loolu dara nekk ci jaay. Hmm. ñu tàmbali. ñu tàmbali wala. bi mu rombee nabu koor teeg ma bàyyi nabu koor bàyyi ma nabu koor bàyyi ma bàyyi ma rek nabu koor moom papi moom xam na suite bi. yow sa xam nga suite bi soosee ko xamul ak ngaala mbay anta nee naa la bul excité nànk nànk nànk rek bu jeexee dinaa la expliquer nànk yow juróom ah, que nga fa woon njort naa ne daal ay ay ay soose xam naa sa njort <laughs> xanaa xamoo euh, soose am na tamit seen xarit bu. Ah, Amadou bu toj seen seen ilaha illallah mi noonu la garaawee. da nga bëgg moom mu may la ko. déedéet déedéet déedéet bu ma ko may bu ma ko may. bu ma ko may. <laughs> ñoo leen soose bul ma may dara maa la ko ñaan. man damaa déedéet lu ngeen di wax na leer. yow da nga ah yow rek. xaaral ma may la boobu. yow rek déedéet déet. alerte quotidien. bismillahi rahmaani rahim. ah waay waay salaamun xawlan min rabbi rahim. ay ca ñu tàmbali ci bisimilah yeggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin oustaz sama waxoon duggati ci laay bi yaa may dégg waaw papi demal nga liggéey papi dama di laa la boole waa Dangote de yow di billaay dinañ la defal affaire <laughs> yow ci sa bopp bu la leeree ne yow lettre d'explication di nga ko jot Dangote yow lu ma la wax ci bu ko gëm ok alerte quotidien ñëw na ci face à face Adji Sonko mu ne